mbokk ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ci àjjuma ji di rafetlu ni ngeen àndee ak rajo Futur Média fas yéene ànd ak yéen ci xalaas mu di suñu journal fait divers ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax Aliou Ba maa ngi lay maa ngi lay gërëm bu baax di nuyu Yacine Pouy ci digital bi eh, nuyu auditeurs yeeg internet yi fu ñu mën di nekk waaye di nuyu sama waa mu di passe partout euh, passe gis nga de. Mhm. ah waaw di de mooy xalaas bi mujj ci at mi nag. incha allah. Ndiaye bu ko defee ñu dugg ci 2022 ak yeneen beneen beneen beneen beneen système mu xalaas. ñaan yàlla dugg ak jàmm rek. amiin ma lay nuyu Ndiaye di la bu baax a baax. amiin di nuyu auditeurs ak internet yëpp di ziar ñëpp ñëpp ñu ngi dugg ci waxtu yi ñu ngi leen ziar bu baax. jërëjëf waay jërëjëf waay sa waay ñu baalu ñëpp àq nag. waaw bu baax ñaanal ñëpp atum jàmm. amiin jàmm mu di deux mille vingt mhm. euh, lépp lu fi nekkoon ci jafe-jafe ci coono ci métit ci mhm. deux mille vingt et un mhm. yàlla bu ñu topp deux mille vingt deux. amiin amiin yàlla doon atum jàmm taw féex naataangi sutura. également xaalis bu baree baree bari di ñaanal partenaires yi ñuy gunge ci xalaas ñi nga xamante ne ji la année bi yëpp dañu àndoon ak ñoom bàyyi wu ñu benn partenaire. Euh, gërëm bu baax nag Optique Vision Plus Sénégal di leen jottali ngërëmu waa Sénégal ndax jafe-jafe yi nga xamante ne ji Sénégalais yi amoon nañ ko ci wàllu lunette moo xam bëgg lunette ñu jox la ko ordonnance doo xam foo koy amee wala nga dem lunette yi cher lool wala nga am ay lunette de marque euh, am ay problème nga soxla ci accessoire xamoo foo koy wute ngay commandé bitim réew di yóbbante loolu lépp Optique Plus Sénégal da ko fee jëlee. lunette ci ne aux yeux notre préoccupation première dëkk nag di ci dox ñoom waa Optivision Plus Sénégal di def lu mat sëkk ci wàllu social ay lunettes yu baax te garantie ñu la koy jaay ci njëg yomb ba noppi nag mu am service après vente bu mucc ayib jaay la lunette ba pare di la ko toppal lu ci sikk nga yóbbu leen ko ci la Optic Vision Plus Sénégal di dox mais également ay promotion yu dul jeex Optic Vision Plus Sénégal nekk ci promo ci mois de décembre bi te sax am na nu muy deme ñu yóbbu ko ba janvier. Hmm. Eh, ci naka mooy 30 euh, pour cent la ñuy wàññi ci prix lunettes yi également am na lunettes de marque yoo xam ne boo ko fa jëndee dañuy jël beneen paire lunettes may la ko comme cadeau Optic Vision Plus Sénégal showroom bi mi ngi ci presse euh, cité Mourtala 2 dend ak hypermarché exclusive mais du foofu rek la nekk Optic hmm. Vision Plus Sénégal mi ngi fépp ci réew mi am nañu boutique Kër Mbay Fall am nañu boutique euh, Mbour am nañu boutique Touba lépp ngir di dab seen bànneex dañuy liggéey du lundi au vendredi de 9h à 17h mais également samedi 9h ba 14h ngeen mën leen a woo ci 33 821 54 57. comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñoom it di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom spécialiste yi ci wàllu sanitaire fii ci réew mi ñëpp nawleen leen ñëpp bëgg leen ñiy jëflante ak ñoom rëccuwuñu ko ndax matériel qualité yu ñuy jaay garantie yu ñuy jaay mais également euh, original bi ñuy jaay muy tuyauterie plomberie matériel sanitaire boo ci bëggee yu baax dangay dem ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal ay accessoires ay tuyaux en PEX ay accessoires PEX et Galva mécanisme CCPS original garantie deux ans. ay chauffe-eau solaire ak ay chauffe électrique yu bari yoo xamante ne ji bu ngeen ko soxlaa dangeen ngeen di dem comptoir commercial de plomberie du Sénégal rue Valmy angle Ngalandou Diouf wala rue Tolbiac angle Faidherbe wala ngeen dem visiter ji showroom bu bees bi ñu leen ubbil ci VDN bi CCPS 33 821 14 80 77 517 98 29 di leen gërëm ci turu turu turu turu Sénégal gi yëpp ñoom waa CCPS Cheikh Anta Diop le savant Cheikh Anta RFM Thiès maa ngi leen nuyu bu baax a baax suñu waa ji ah lu ne def nga ko fi <laughs> Cheikh Anta tey seet si ñun lu ne def nga ko fi fa mën a yem nag. lu ne Cheikh Anta def na ko fi maa ngi lay nuyu Paas. Ndiaye xalaa xalaasu tey bii nag ah. Hmm. comme mooy xalaas yu mujj. Hmm. baan daa waroon ñëw toog ci at mi ci at ñëw toog abaa ñëw toog. waaw xalaas bu complet ñu def ko xalaas bu ala dawbe. tiré deux mille vingt et un en beauté quoi. dafa am ñoo xam ne man du ma wax seen wax. mais nag mais nag Ndiaye. ma ne. dafa am ñoo xam ne du ma wax seeni wax ñi dañ ma bàyyi dem campagne yi. ñii ne grand bal day am Dakar Arena amuñu suñu jot. wallaay wallaay léegi nag ñun ñi nga xam ne ñun dañoom engagement moral. waaw ak auditeurs yi. ak waa Sénégal. nañ ci dem rek. respecté ko. voilà mais nag démb Ndiaye. Mhm. Abba dafa am lu ñu jaar la ci moom. ci internet yi mu doon na ko wax fii nii. Mhm. mu tànn ci quelque. jox leen ay ay cadeau fin d'année. Mhm. mooy téléphone yi mu a jili CSB moo ko. jili CSB waaw ñu jënd billet pour dem ca Youssou Ndour ja. boobu sax bokkul ak ah, yooyu. dañoo tànn ñaari internet jox leen téléphone am ku ñu wax tamit Omar Cheva moom tamit tànn ñaar tamit jox leen Cheva. ñu leen di remercier ñoom ñëpp ñu def ko cadeau fin d'année ci turu RFM ci turu Xalaas ci turu Aba sama tur turu Ndiaye turu Ban. yàlla na jàmm yàgg turu ñëpp. Sénégalais daam ñu yéwén nag. waaw wala ngay xam ne réewum jàmm réew ci réewum jàmm la ñu nekk. Hmm. mbir xew fi. bu waree jur fitna danañ ci kaf fo ci ree ci xoolal bi ñuy bi ñuy bi ñuy inauguré terre bi. Hmm. loo ci gisul amul ba ci am waaw. ak ak ak maanaam kaaf gi ak ree gi yàlla na jàmm yàgg. yow fuñ jëm hmm? fuñ jëm ah. yëgagoo si. xam nga man nag sama histoire ak saxaar moom dafa yàgg. sixième bi may jàng sixième. waaw ba ni may amee bac. Hmm. heure bu ma xëyee saxaar gi lay jëli jàngi. yaa man gën a kees laa na man déet man dama lay man Pikine la daan jóge di dem Abbé Pierson daan jóge Pikine di dem lamin Gueye daan jóge Pikine di dem de la Fosse man ginnaaw laa dëkk suñuy kër ak raay bi nii la def nii nii hmm. ñun ay lankoot saxaar <laughs> teer bi languloo ci kenn de. ah man de man fu ma teer roobu naa ko lang Ndiaye. waaw ñu eggali démb fa ñu nekkoon. Mhm. ca tailleur ya. waaw mooy ñi ñu jëlee woon fii. dem jaay leen jële waaw yóbbu leen Nigéria. jaay leen. waaw moom noonu lañ ko mën a tuddee. waaw jaay jaay la rek. fu ñu tolloon. bi ñuy ñibbisi. ba ñu sàccee bagage jaay ko. machine atelier ba jaay ko pour am lu ñu mën a déparé. bay ñibbisi. Mhm. bi waa ji demee ba Sénégal bi ne ko poste boo dem. teel xaalis policier boo egg rek ko rek ne ko ñi nga àndal ba mu ñëw ba ngëpp xaalis jox policier ba ci premier poste ba. waaw déglu. mais gis nga policier ba mu ko nuyoo xaalis ba rek wan ko ginnaaw mais gis nga cicatrice bi nii sama digg bopp bi sa waaye taatu mété bi la ma dóor si bopp ndax li ma ko jox xaalis bi dama ko jox rek mu dóor ma taatu mété bi taj rek sama bopp bi xat fekk maa ngi sol benn yére bu weex deret bi yëpp sotteew mais chauffeur bi nekk benn gaan bu jantal chauffeur bi moo jóg dal ci kaw policier bi di kaas laa la waxal nii di tàngal si kaw policier bi lu tax mu def lii lakk di ko lakk anglais saa coow li mu nekk foofu kur comme yëre yu weex laa solo yëre yu weex yëpp takk affaire bi nag ba pare bis bi aussi yëpp takk deret ñëw wax wax wax fii coow li kër ba gars bàyyi oto bi jàll man tamit ma xam ne man instant bi ñun ñu ngi doog a tàmbali lii nii am instant yi nii suñu bakkan mu ngi si xottu gerte comme man maa jëloon initiative bi yëpp man affaire bi yëpp maa ko tëgg te it ñi ma àndal a affaire yi ma ne doo man kon man naa jéem a jéngu lépp lépp daal nekk sama ndodd quoi ci laa yëkkati sama carte bancaire sama numéro sama kër samay adresse yaay lépp jox sama benn benn gars bi nga ne jeune la man na ko man daal boo gisee ma génn sama yaay moo taxoon ma génn ak samay frère li ma am yëpp nag sama compte bancaire Mali mu ngi nii am na lii xaalis bi mu ngi nii bëgg boo demee nga dagaleel ma lépp bu fekkee ne man génnuñu si yéen daal mel xaw ma leen xaw ma leen ma bu ñu jàppee dinaa leen wax ne man la yéen doo leen ay sénégalais sax nëbb leen seen kàddante nëbb leen seen lépp lu am lu nekk ñu xam ne man maa ko def bu ñuy rey ñu rey ma yéen yow daal da ma dimbale ba sama yaay na jot sama affaire gaañ bi jooy ndeysaan téye ma bapp ma gaañ wax na leen ne ma sawaye ñun ñëpp dañuy dem dañuy dem toog mais yegg gars yi bu ñu ñëwee policier bu ñu ñëwee pour def contrôle bu ñu duggee li ñuy njëkk a remarqué mooy deret bi nekk si biir oto bi ñoom nag bu ñu gisee deret dañuy dañuy xalaat ne gars yi di kar bus yi ñoom ñooñu kar quoi ba am ay blessé mais après saa waay da leen di tegal ne leen non seen benn mbokk policier moo def lii benn gars yi expliqué wax la wax leen ba ñoom ñu comprendre quoi après dañuy bàyyi bis bi dem yooyu sax loolu noonu sax dimbali nañu suñu bëri loo xamante ne gars ñu contrôle mais fi ñu toog dara bu sonee sax dañuy yaakaar ne femme bi moo woote police ne gars yi poste boo yegg si xottu nen ngay toog yaa ngi toog naan femme bi woote na yegg si na woote na mais suffit que femme bi

yow dañ lay yanoon ay étage rek jël étage bi wala teggi la te lépp kenn teguñu ko lu dul lan suñu mbokk sénégalais moo ñu ko teg côté boobu moom man depuis ma jógee si loolu ba léegi amatuma confiance si kenn néew ma la sénégalais man li ma dund Nigéria yëpp am na yoo xamante ne man mënu ma ko wax mënu ma ko wax si rajo mënu ma ko wax non du lépp la ñu a wax li ma li ma li nii nii mooy li gën a ndaw si li ma fa dund man moom wax dëgg neex yàlla a a a baax a baax a baax la du ñëpp ñoo bon mais en général boo xoolee ñu si bëri dañuy dem sànq gis naa fi ñoo xamante ne ne seen jëkkër dem na ay Mali ay Nigéria jàng fa ba tey xoolal ñëwuñu ñëwatuñu Sénégal ñëwatuñu te man loolu gis naa ko du benn yoon ñaar yoon xalaas dégg ko Ndiaye waaw lii de war naa yee kenn ku nekk waaw war naa yee kenn mais moom ñibbisi na ci jàmm ñibbisi na ci jàmm ana ñam àndaloon ñëpp ñibbisi nañ nañ sant yàlla waaw nañ sant yàlla te bu ñu bu ñuy jugeeti ci réew mi mhm. di dem fu mën di doon mhm. na leen fa luy wér yóbbu mm-hmm. voilà na leen fa dëgg la nag am teraanga wutu teraanga yooyu yëpp dëgg la waaye nag bala ngay teg sa tànk da ngay xool ba xam fi nga koy teg bu baax mm-hmm. parce que lii moom yàlla leen suturaal waaye am na nu mu doon demee leneen la ñuy wax te nag jàppal benn affaire de mm-hmm. ñoom ni ñu demee mucc ñibbisi li ma leer mooy am na fa ñu fa toog ñoo xamante ne ji fa la ñu sànkoo parce que femme bi leen def lii il n'est pas à son c'est-à-dire du bii mooy gulet mu koy mu ko mu koy jéem te du mooy ah mais comme wax na nag fi mu ne moom euh, paas. ñu si ñu si def daal kuñ ci nax nag moom moom moom moom. waaw ñun comme dañuy alerte dañuy alerté chaque fois rek. Mhm. ñu ko di alerté rek ñu alerté waat encore. avant le premier. lu war a xew avant le premier. non avant premier. ah avant premier d' accord. Ah, xam nga par exemple Ndiaye booy def benn événement mën nga def avant premier. joxe benn affaire bu ndaw. yaa ngi wax lu yàgg. ah Ndiaye man Ndiaye man nag tamit nag. yàgguma mais damaa kii de. yaa ngi damaa wër. <laughs> Eh. ay film ay lancement. ak ah, lancement <laughs> lancement kay Ndiaye voilà le mot lancement. waaye léegi avant première bi lii lu muy lu muy lancement bi. Mhm. mooy annoncé xalaas bi ci topp. si mooy annoncé xalaas bi en fait. Mhm. waa ji dafa dugg ci benn sëy mais Ndiaye sëy bu compliqué compliqué compliqué. moom mi moom mi léegi sëy bu mu njëkkoon dugg nag ba génn ca. Mhm. dafa takk benn femme frère am moom. financé ko 6 millions pour mu liggéey. Mhm. moom mu jël 6 millions yi ànd ak jabar ji pour ñu liggéey. Mhm. ci li mu wax jabar ji ak moo xaalis bi nax ko bu yóbbu ko seen dëkk toroxal ko torturé ko nee na mu liggéey ko liggéey boo xamante ne tey bu tëddee di nelaw boo ko yeewul yeewu. <laughs> looy wax waa ja koy wax de nee na bu tëddee di nelaw boo ko fekkul nga yeeku du yeewu. génn na ci sëy boobu loolu la expliqué ni ñu doog a ñëw nag ci sëy bi mu takk nii nag ak lu ko ci dugal fan la ci mujj. Ndiaye kon bi bu sëy bu mujj bi da cee sonn. mooy Ndiaye déglu avant premier. bisimilah. sama premier sëy bi laa lay njëkk a nettali. boobu sama rakk bu góor mu ma financé six millions cinq cent. may liggéey ak moom pour ëllëg. mu doon teraangaam doon suma teraanga li may dund dafa métti yàlla def ma def ko ni sama bopp ñuy liggéey ndeke moom li muy liggéey lépp mu ngi liggéeyal boppam mu roñ sumay bagaar roñ suma lépp ñibbi seen dëkk mu yóbbu ma seen dëkk humilier ma torturé ma ba tey ma lay waxan ni barke alxuraanu karim daf ma liggéey liggéey boo xam ne su ma tëddee ci lal bu ma nelew boo ma yeew du ma jóg kon moo tax ma ne képp kuy seeg jigéen na xool ki ngay seel kan la ndax loo xamante ne li nga war a gérer sa foyer ëllëg sa doom war dégg suba nettali bu rafet lu am solo la des fois daf ma fi woo téléphone dama koy woo téléphone ma mën a am ay jur doom sànni kan mooy jur doom sànni mais doom soo ko juree jur ko ci sunna si sa farat si Muhammad da ko war a yor mais ana la nga ko yoree parce que la nga ko a yoree moom lekk na ko xalaas mhm. waa ji ci loolu la génn nee na jabar def na ko loo xamante ni bu tëddee nelaw boo ko yeewul du yeewu mhm. waa ji dem nag reprendre liggéeyam di liggéey liggéeyam am benn xale bu jigéen bu ànd ak benn copinam mhm. boo xam ne moom mii la doon génnal mhm. maanaam muy doxaan benn xale bu jigéen mhm. kooku ñëw ganes ci benn kër seen koñ am benn femme bu fa ñëw ganes si gelam moom présenté ko kooku ñu xamante gel ba ñu dem quelque temps gelam moom moom propre gelam ñu takk ko dégg nga wax ji bu baax mu dem ca kañ ko présenté woon. xaritu gelam bi. waaw ñoom ñaar moo kooku ñuy bëggante. Hmm. ba kooku jóge fi dellu seen dëkk ñuy déggante ñoom ñaar di déggante di déggante di déggante ba kooku ne ko. Hmm. bu fekkente ni da ngaa bëgg jabar yónneel ñu takk sëy bi nee ndaw si teg ko pression daal. Hmm. ba mu déggante ak frère ndaw si ba jóge fi dem ci dëkk ba di seeti ndaw si ak seen famille nee na bi muy dem. xelu saay-saay moo ko yóbbu woon maanaam dem. dem foofu dara lu sérieux yóbbu ko daal. Mhm. parce que comme seen kooku amoon na jëkkër aussi ba tas mu ne na dem pour foofu mais bu mu demee nag ba kër ndaw sa. Mhm. fekk ne papa ndaw si kilifa la. Mm, mu ngiroo fa. mu ngiroo fa kooku non seulement da ko yóbbu ci néegu surgo yi fa la fanaan. parce que ndax xam nga fi mu ne bari na sëy yu takku yoo xamante ne ji ña kañu takk ka takk yëpp seen kàddu loon jiitu rek. mais Ndiaye loolu neexul de. waa ji fa la fanaan ba ñu takk sëy ba. wax ji. waaw waa nelawu fa rek. non fanaan fa nag moom ci néegu surga <laughs> yi léegi bi ñu takkee sëy bi nag njaay uh-huh. ba moom ndaw si commencé sëy nee na chaque trois jours ndaw si fay fay maanaam fay quoi yéen ay waaw dem waaw uh-huh. léegi pour rappel kër gi ko waa fa la doon fréquenté uh-huh. ba kër googu noonu taawam bu jigéen femme bi nga xam te ni ca kër ga dëkk di am fa borom këram kooku la ko tuddee kon xanaa jege nañu moom ndaw suñuy sëy di jug di daanu di jug di daanu du waree jàmm de. Ndiaye doo laaj fan lañ ah, waa ji xëy na téléphone am yàqu. Mhm. moom mii. Mhm. jabar ji jóge fi dem seen dëkk ne dafay nàmpal parce que am nañ doom. Mhm. moo ngi ndaw si ñu toog diir déggante waa ji dafa téléphone woo ndaw si ndaw si ne ko maa ngi Dakar ci kër gi nga xam ko nga xamee woon. ndekete kooku takk na ko. laa ilaha illa. taawam. waaye déedéet lii du dëgg waaye tamit. non loolu mënul nekk waaye yow comme tuddee taaw moo takk jawaram <laughs> astaghfirullah ku ñuy déglu ji moom faaji jox ñu. bu ma jógee foofu presque toogaat naa sept ans huit ans. ma ne man daal jigéen. baax la ba yàlla def ndaw sii ma takk tey xaritam ñoom ñaar ñoo gane si si benn kër yàlla def ki ma xamante ne moom laa xamante moom laa doon génnal dafa jël si woon borom këram te ma nekk ak moom ñu nekk des fois mu ñëw suma place ñu toog di waxtaan des fois mu ñëw suma nekk ñu toog di waxtaan ba jour bi nga xamante ne keroog la jëkkëram wala jógee France ñibbi si mu ak ndaw sii ma takk tey bu mu ñëwee ma ko mu ma kaay ma may kii amul jëkkër dafa doon sëy ba tas man kon ndax man ñemeeti naa takk jabar man ñemeeti naa takk jabar ndax jabar képp ku koy takk rek war nga ko xool xoolaat ko seet ko seetaatal ko ndax xale jigéen dañ naan la takk ma takk ma mais après fasema fasema ci topp wala ñu ñëw fekk la la nga yor ñu ne ko coppet jël yóbbu léegi ñëw ñu ci bëri nag naan la kii dafa dof wala wérul wala dañ ko fekk na dañ laa liggéey xam nga ki lekk sa alal liggéey la ba pare kooku dèjà tooñ na la ñaari yoon man waxuma ko tooñ na waxuma ko woon mu jël sama numéro ci jël sama numéro boobu mu dem seen dëkk ñuy wootante téléphone moom nag daf mu yàkkamti sëy bi ci bi magam bu góor di jógee foofu di ñëw war a dem tukki France mu jox ko sama numéro kooku woo ma téléphone ne ma diw ko su fekkente ne am nga jot nga ñëw kër ga ñu toog waxtaan bi ma ñëwee toog ak moom waxtaan mu ne ma ah, diw de nee na da ngeen bëggante ma ne ko waaw ah, lu ma ko wax ne ko waaw mu ne ma nag su ma sañoon da ngay dagg sa paas nga ñëw xamante ak mbokk yi ma ne ko amul benn problème ma jógee fi di dem li ma lay wax nii maaxul liggéey te samay doole parce que su ma yeboo ma ne la ñoom ñoo ma très avancé parce que xam naa ne man du ma jur doom di sànni te doom ju ma jur it danaa def ci moom yàlla li ma jot ci yàlla li ma ñàkk ci jot mais danaa fas waxiirlu xam ne lii yàlla nattu yàlla la te yàlla bu la tegee nattu da nga koy nangu ma ne waaw léegi ma dem fa jënd su may nécessaire jënd ku jënd ba jënd seen xaalis jënd bàkk jënd ay robe ci ñaw ñu yóbbu mel ni ku yor jabar ba ma fa demee dama nu seet ci seet boobu ma doon seet nag yàlla def ma fekk fa kilifa kilifa ku ah, moo ko joxee sama numéro papa mu téléphoné sama papa laaj ko expliqué ko sama papa ne ko waaw ànd naa ci mu ne ko bu soobee kii maye bu ñibbisee dañ jàpp bés rafetal ko daganal diggante bi am naa droit jaay sumay machine jaay sama alal takkee ko soxna ndax ëllëg ak ci biir njaboot gama ciy jur xaalis alal la mu ne ma nee nañ ba defee lépp lépp lépp waxtaan bi lépp boo joxee juróom benn fukki junne dinañ daganal seen diggante ma ko amul problème yëkkati sama ñaari machine jaay ko dem si seen horaire buntu piki ma yóbbante ko ma ko yóbbantee parce que xam nga man nag ndaw si waxuñu dara lii nga may jox ak lee nga may jox mu woo ma moom ak yaayam biñ ma woowee téléphone moom ak ma mu ne ma waxu muy waxuñoon lii man mu ne ma 400000 la ñu waxoon ma ne ko déet mu naa ma ne ko yow nag ngay séyee ba tas di ma laaj 400000 mu naa ma ne ko man bu fekkente ne maag yow dañoo waxul dara man maa yëkkati lii personnellement jox ko comme léegi nee nañ lépp lii lépp ci lañ koy def mu a ma ne ko man maa ko yëkkati bu fekkente ne nar na demee noonu delloo si leen ma sama xaalis il faut mu takk mu ne waa amul problème la demal ba demee sama papa ba mu demee dañ ne que passe rek la fi jëlee dem comme moom dafay fekk lépp foofu kon foofu kooku warul yóbbu xaalis ki jóge fii di dem di la ndax yor ko laajaat ko ne ko ana li nga yor mu ana expliqué mu waxul dara mu am complexe ñu mujj ñoom seen bopp xaritu seen bàyyi lebal xaalis kat quatre-vingt mille francs moom lañ defee takk jàkka jeeg affaire yooyu sama papa ñibbi si mu ne ma bi muy ñëw ànd ak ndaw si mu ne ma nag am nga fa bor ma ne ko boru lan mu ne ma boru fukki junne ak juróom-benn ma ne ko fukki juróom-benn bu juróom-benn yi lu ko waral man daal loolu lañ ma wax ma ne ko déet papa mu ne ma ko da ngaa waxtoon na ne waxtaanoo na ak ñoom mu ne ma ne ko ba ngeen ne bu ngeen moo indee juróom-benn fukki junne yi ngeen def ci lëpp mu ne ma ne ko léegi waxtaan ngeen ci loolu ba juboo ci kàddu ma yëkkati loolu yóbbante ngeen bëgg cee tegaat leneen mu ne ma ne ko ah amul problème yàlla baax na noonu ci fukki junne ak juróom-benn yooyu chaque jour borom fukki junne yeeg juróom-benn di ma woo téléphone téléphone di ma soññ di ma woo téléphone di ma soññ ba mujj gi seen mag bu góor moo ko fay parce que yoruma ko. Ndiaye bi ma ndax di neexu ma. aw ma sañ-sañu laal programme bi de waaye lii de li ci topp de bëggoon naa koo dégg. ah Ndiaye da ngaa wax boobu. mënuma ko. ah. présidence ba deux mille vingt deux jàmm ah.